vendredi bu nekk dañuy euh, defaat rétrospective de l'actualité maanaam lépp li nga xamante ne moo xewee ci réew mi euh, altine ba jamono ji moom la ñuy dal rek daal di koy indiwaat léegi ku ci nekk nag yaay xool li nga xamante ne moo la ëppal solo xëy na euh, pour nga daal di ci àddu soo ko defee nag nga tànn ko waaye itam mën nga wax ci ñi nga xamante ni itam amee na ci biir mi donc vendredi moom daanaka ku ci nekk yaay xool rek li nga xamante ne moo la gën soxal su boobaa itam dinañ la may rek nga daal di koy waxee ci njëkk su nekk am na keneen ku bëgg bokk ci waxtaan wi ñu daal di koy jël salaamaaleykum allo allo. waaw. def. ñu ngi sant baax ñu ngi leen di siyaare. lay delloo siyaar di kontaan ci yow. ñu ngi koy delloo bu baax di seetaan émission bi am na solo. Mhm. ñaanal suñu Ousmane Sonko bu sell yàlla ko suñu borom aar sàmm ko. te génn ko fee mu nekk nu mu gën gaawe mm-hmm. ah, di wax ni su ma doon mooma de xam nga woote woon naa ci ay jamono boo ko fàttali ko ma ne Ousmane Sonko su ma doon mooma damay bàyyi yow doolu def mel ne waxoon naa la ko de mm-hmm. xam nga waxoon naa ko fi woote ci benn émission nga naan na déedéet nee nañ tànki kanam naa waaye amul tànki ginnaaw mm-hmm. Sénégal ci boppam ñoo neexut a jàppale te ñu bari dañ koo seetaan ndax ñun dañu jekkoo Eh, ba ñu jekkoo bu njëkk mhm. ñépp a génn ñu waxtaan bu bàyyi lépp mu sedd dégg ndigal waaye mhm. su fekkonte ne booba ñun waxtaanuñu woon ba dëgg ne am nañ tam kon booba booba la ñuy abal réew mi mhm. ñu jël sunu réew defar ko waaye Sénégal nee naa li ñu mérito rek la leen yàlla jox kese dama ci naqari kay mooy Ousmane ko mu dugal ca kaso ba rek waaw ay njabootam soxla ko te soxnaam soxla ko mu bàyyi yaay bàyyi bàyyi ak bool ko suuf souffrir bu yàgg lool sax nag daanaka ñaari at ñett mm-hmm. ñu di ko jiñ yu ñàkk fayda ay téléphone ak ay doy fa yoole keek yoo xam ne tekkiwu dara yoo xam ne képp képp kuy wax nii rek naan moom la moom la kum tegaloon kaamil mënta dóor loxoom ne moom la mm-hmm. am na ñoo xam ne moom da leen dañuy wax lu leen neex rek mm-hmm. nit ki moom boo ko bañee moom bañ nga ko rek waaye loo ko bañ bañ nga xool sa traay bàmmeel ëllëg nga xool loo xamante ni ndax moom li ko dal lépp moo ko ko yóbbee boppam ci lan pour ñu ba jël Sénégal defar ko mhm. ndawee gis ci seen bopp ñeneen ñu du ndawee gis ci seen bopp loolu kese combat boobu kese la tëgg mhm. kon loolu képp ko bëgg lu baax bëgg sam réew ndax ñun xaaj bi fii ma ne la xoolal xaaj bi ne Sénégal mhm. xale yi jaar ci gaal gi lan moo tax ñu bàyyi senegal di jaar ci gaal gi bëgg luñu ëllëg teral seen njaboot teral seeni waajur ñàkk am Sénégal moo tax ñuy jaar ci gaal gi ñi nga xamante ne ñu nekk fii ñun ñëpp buñ suñu dëkk neexoon duñu bàyyi suñu réew dëkk fii kon kooku ne tey te ñun li ñuy jéggal lépp am na Sénégal ndax duma noppi di leen ko wax ndax ñun bu dee jullit ñu ngi julli ñu ngi woor ci natt asaka mhm. ndax yaa nga fi di ñu ñaanal ko mhm. waaye kuy seet ne ñoom man daa man daal mënumaa comprendre Sénégal Sénégal lëj na lëj dañuy ko jiite bopp ñu juróom fukki ay nit nekk Sénégal ba xeex ma taxal la mhm. Macky Sall ak ñi topp ci ginnaaw bu matee mhm. léegi nag ci ñooñu kese képp ku xas naan président daa Macky Sall euh, Sonko rek kooku moom du nitu dara pour man mhm. ndax lu baax kese moo ko yóbbalee pour man ñëw leen ñu defar réew mi émission bu mujj bii lu wax képp ku loo sedd rek nga dikk ñu liggéey gis nga kii bu fekkonte ne tey intérêt boppam la fa mu nekkoon di liggéey day lekk ne ñëpp jàpp boppam dund ak njabootam. Hmm. heure bu bëggee tukki tukki heure bu bëggee toog toog tudd suñu ko mu dem fenn kon kii ku ko jàppalewut pour man say wax sax jër ta wax am na ñoo xam ne dañuy dugg ci émission bi te duñ xam lu ñuy wax te ay mujj jëmm lañ hmm. kenn ku ne xam ne bis dana ñëw lépp ñu wax si danañ ko wax ëllëg yemal xiyaam hmm. ndax xale yi wàcc ci téere bi di yàq bu ñu amul luñ bëgg duñu yàq ndax dëkk du ñu yàq suñu dëkk la luñ ci yëpp luñ fi yàq ñun suñu alal kese la te ci askan bi kese lañ koy fayoo ñuy yàq ne dañoo mën a jot dañoo mën mënta jot ci ñi nga xam ne moom lañ waxal bu ñu waxee duñ leen dégg kon yàq kese lañ mën a def mm-hmm. feeñu ko tëj nag du palaasam waaw ñu ko tëj am na ñoo xam ne xaaj bi seen palaasa nga fa te ñu leen fa xanaa dañu wax ne dañu nguur moom dafa am doole waaye mu am am am doole na sóoraale bis dana ñëw suñu borom woo ko ne ko la ma la dénkoon ci àdduna nan nga ko yore woon est ce que moom président mi nga xool loolu ak ñi mu àndal ci ginnaawam. Mhm. ne xanaa tey moom bu dafee ñeneen ñi ci des kenn nit sax wax xanaa war naa mën a baax. waaye ñëpp maase rek dëmm mattu rek mel ni aw aw ci kaw la rek dëmm gi xool ñu kenn xool ñu ne xale yi naqar lañ am xool ñu xale yaa ngi yàq xool ñuy dee ñu dee suñu doomi nee naa leen police yi moom waxuma seeni wax tey damay ba xalaat ci ci suba teel gi ma ne police moom pour man mun maa ah munu maa gëm ne dañ leen a fay xaalis xam nga lu ma gëm. Hmm. sacrifice bi muy def da leen cee boole ba tax li ñuy def tëyatuñ ko loolu rek la mën a demee ndax kuy jàkkaarloo saw askan leen tiire ay bal ci koo xamante ne kenn nit la moo munumaa gëm loolu ñëpp la takk pour man doog a jóg ñëpp la ci boole nag looloo tax nii rek la mën a demee ndax ñoom ci yooyu la ñuy dox. léegi yow tak tak tak takk bu mel ma ne Faye Sall dafa dox. léegi ah? allo soxna si. waaw takk takk bu mel ah. nan. takk bu mel nan ma ne yow imanseel xoolal ba mu ba mu yoree réew mi ba nëgëni xoolal bakkan ci rot mhm. xoolal bakkan yi ci rot waxuma la waaye accident ci kaw accident mhm. est-ce wadd imanseel te yow fi la la fekk yow laay wadd bi mu toogee ak ak toogu Macky Sall bi imanseel ñaar yooyu rek ah mais ñaar ñaar boo déggee ki dee bala nga koo déggaat bu njëkk kenn du xam kañ la. ah mais ñaar ñaar yorinu nguur yi moo bokkul rek. Ah, ah, ah, mooy nguur gu bon lañ am nag. te te léegi ñi ci war a jàpp kilifa yi ci war a jàpp ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo sës ci ginnaaw am na ñoo xam dañuy woote di xas Ousmane Sonko mm-hmm. naan moo ko yóbbee boppam mm-hmm. moom lu ñu yóbbee boppam ñëw leen ñu defar Sénégal ñëw leen yi fi yàqu lépp ñu defar ko mm-hmm. loolu moo ko dal kon xanaa moom ñu ànd ak ñoom itam ñoom it baaxuñu police yi nga te ne tey xam nañ ne metti ne ba mu mettee ñaari ak ñett ak ñuy xeex di rey seen doom ñu waroon a taxaw ñun ci ci sunu wet ñu protes ñu ñoo ñuy wëlbatiku ñoom dañu xeex kon damay yaakaar ni man doonu luñ ndax lenn li boo dee tey di ànd ak sa xel sa xalaat di xal di nga di kii kat wax dëgg yàlla lii bu xoolut suñu borom mën na xool suñu borom ëllëg mhm. waaye dafa mel ni ñoom dañ koo tëyu may wax ñu naan euh, ñi daal lu ma leen bëgg a sax dama koy xeeb ñoom daal amuñu xel xalaat moom xel bay xalaat amuñu ko fee mu nekk suñu borom mi nga xam ne moo ko fa dugal mhm. ñoom suñu borom dina ko fa génne d'accord bi dañ koy tas pacte bi suus ñu ko ba di ko tas gis nga ñoom moomuñu nit ñi nag moomuñu nit ñi seen baay doon na doon ko ci réew mi seen maam ñu ko dañ leen fee fal pour ñu liggéeyal leen ñu sàcc sunu xaalis ay ay at Ousmane Sonko dikk yéen nit ñi ñëw leen ànd liggéeyal réew mi ñu ne dañ koy faagaagal ci lu ñàkk fayda nit ñi rek a ñàkk fayda lu ñu wératoo rek la yàlla di jox waaye Ousmane Sonko bu ma doon moom bu ma génnee sama kër laay toog wax sama njaboot bàyyi leen ma di sal leen mbugal di leen mbugal ba ñu ba alaayu mi diina d'accord merci